dikkati na loo ci mënti waxit Sénégal bu dëggul liggéey jàmbur dees na jaaxle wala turbine yéen a kaay naan senegal lu ñu dal ba njiit mu ñu am mu daal di jënd askan wi naan la ma saf laay def te mënu leen ci dara fàttaliku leen nag jamonoy Abdoulaye Wade turbine yéen a kaay naan man Sénégal nga ko woon ca wax waxeet bu Abdoulaye Wade tey mu daal di ndetteelu ci président Macky Sall boo xam ne dafa waataloon askan wi ne leen maa waatoon wattee waay waay ñun Sénégal réew mi lu ñu dal luy problème bi yéen bi naan man en tout cas waat ba watteet ba ña ko jaar jaaralee nag ci commission d' enquête parlementaire tribune naan maan ma ni la commission d' enquête parlementaire boobu anamu mbaadu nag dafa judd wew xoj faatu fa yallaahu moom Abdoul Mbaw akub équipe am mbaadu nag bañ leen taxawalee rapport bi dafa ñëw daal di gas ba mu xóot daal di leen di suul laaj ba mooy kay ndax sax lañ leen santoon matale nañ ko yéen kaay bi naan maan lu ci mënti am dàq nañ élection te moo doon mission bi boo may tuwul la ñu tuumaal conseil constitutionnel nag tey critique yéen kaay naan maan jii ma la kan mooy taxaw dëggal boppam ne nag dàqub élection présidentielle bi sama loxo nga ca gars yi président Macky Sall yi nag ña ngi koy setal rag terewul nag coow li loo ci manti déggi président Macky Sall parti démocratique sénégalais kenn mënu leen te ne keccet ndax nag ka nga xam ne moo jëlub décret daal di dàqaat ab décret bu ñu nee tey ji kii bëggul dàqee élection coow day daal di juddu Abdoulaye Diouf Sarr ci turbine yéen a kaay naan leen déet loolu kay mën naa bañ a nekku bëgg-bëgg Diouf Sarr naan leen la ngeen waroon kaas mooy ñu dem élection ak coowoo yu bari yi ñu dem élection ak jiixi jaaxa yi nga xam ne bari na ci réew mi élection daal di simpi lépp loo xam ne dëgg la ca waroon mën a yàq élection tey kay Sénégal la leen waroon mooy daal di tàccu ñi nga xam ni mani la ay républicain lañu di ay démocrate dëgg xam na ni bu nu eggoon ci élection yi ak coow yi lambaay dana ñaaw wala juusaar naan kon en tant que président de la république moom image am ak bëgg-bëggam kontewul la konte kay tey jii mooy bëgg-bëgg Sénégal yéenépp Sénégal waaye tam Sénégal bañ tàbbi ci coowoo waaye tam bañ a kalaate Sénégal bañ a suux li doon liggéeyu président l'observateur naan kon boobu image tey jii dey sall bu bàyyee Sénégal ni day wëri liggéey ca bitim réew dana ko jafe wala yéeni kaay futur média bi naan bu dee carrière am ci international la ko yaakaaroon day buye boo sàll toog Sénégal moom président Macky Sall crédibilité am daal dinañ koy taqal suuf xajam lool image am ñu di koy caxat-caxatee légitimité mi daal di yàqu te lii man naa tax ba bitim réew ga mu yaakaaroon xëy daal di gàntu te chance ga moom président Macky Sall ngir ut poste ca bitim réew fi mu ne antootul de këpp jàpp ne Sénégal daal doonatul réewum démocratie te président Macky Sall ko def bés bi le jour naan kon monte Souleymane Jules Diop day ni ki démb nee na président Macky Sall akub njabootam daal dinañuy toxu daanaka ca Maroc ba naan déet amul mbir yi daal daal di jaxasoo turbine yéen a kaay naan man jaxasoo amu fi fi mu ne kay ngi boole seen doole xool nees def ba daal di dal ci kaw président Macky Sall ni ki démb démb ma ne la yaanaa maar dem na seeti Bougane Gueye Dany ñu ànd nag xool ban stratégie la ñuy deg ngir xeex report bii ñeent ci ay feem fas nañ ci yéen a dugal seen loxo te danañ ca soobu lenn lu dul fexe ba président Macky Sall daal di deltu ginnaaw ci dogal bii nga xam ne jël na ko yana maar ak Bougane Gueye Dany ne fas nañu yéene xeexit ngir opposition bi seenub xeex doon benn combat gi ñu daal di ciy soobandoo 24 heures yéene kaay naan mani la coow li coow li conseil constitutionnel la Youssou Diallo magistrat Ndiaga Sylla expert électoral professeur Sidi Alpha Ndiaye ñoom ñett ñëpp xam le ni report bi boo ko jëlee ci wàllu droit dongu jaarul yoon kon tey jii conseil constitutionnel mënta def lu dul daal di koy dàq l'enquête ko dajee naan kon conseil constitutionnel ay député opposition dugal nañ fa report ay opposant bokkoon ci présidentiel bi defub report Sud Quotidien naan kon sës ngeen wis bi na conseil constitutionnel fi ne lu conseil bi war a def moom laaj bi Walf Quotidien daal di may xamal ne en tout cas Sénégal li nii mën naa tàkkaatu ma ma syndicat yaa ngi ca mbedd ma élèves yi ca mbedd ma étudiants yi ca mbedd ma kilifa diine yi ca mbedd ma fonctionnaire yi ca mbedd ma architecte yi ca mbedd ma politique quotidien le quotidien nan kon en tout cas pression bi nga xam ne teg nañ ko ci ndodd président Macky Sall salte na ñaaw na tey mi ngi fas yéene jéggi dayoo ñoom jàngalekat yi dees na débrayé ni ki tey député yi yeewi askan wi daal di dem te set sage ñi leen atte leen dëgg aar sunu élection fas yéene manifester talaata ji l'info yéene kaay nan kon waykat yeeg rappeurs yi ña ngay yedd sàll ngaa ka blende nan kon boo xalaatoon dëgg sàll di nga jaar ci buntu bin la xàllal jaar ci anam wi gën waaye doo dàq élection dib dund gis nan kon dialogué wu nu waxtaanuñu ànduñ ci rapport bi ci licence Walfadjri bi nga jël 25 février la ñuy demi élection te nga libéré détenu politique yi lii mooy wax ji DJ Awadi naan ko la nga def yow président Macky Sall moo amut explication lii dafa mel ni ay njuuj njaaj ngir wéy di ñu jiite ndongo ji bu daara ji famille naan koon Sénégal day daanaka démocrate ci wàllu Afrique moo ko fi dese woon waaye tey xañ nga nu ko ndax constitution bi nga xam ni caxat caxatee ngeen ko baaba maal naan am na njàqare ci réew mi nanu jiital dialogue daal di waxtaan ngir andi saafara yéen kaay bi naan maan boo ko moyee yeneen waykat yi ci réew mi moom kenn déggu leen ci coow li ci réew mi Mamadou Yatassay naan dara coow li daal la ñu war a wax moom moo di jàmm am ci réew mi ñu daal di woote dal ci réew réewum Sénégal Mamadou Yatassay naan lu dul jàmm jàmm ko gën ndax bu ñu fexee ba tàbbal réew mi ci xeexoo xiiroo ŋaayoo ñun sénégalais yi ñoo koy njëkk yëg ñu waxtaan suñu biir xool nees def ba daal di woote jàmm ndax loo ci man ci dégg jàmm ci boppam lépp ci la xaj le Témoin yéene kaay naan kon lii xeeñ neexul lii xeeñ gaa yi ni ñu tàmbalee mobiliser nii suñ ci teelul wax daal jur jàmm ci réewum Sénégal le Soleil yéene moom la CEDEAO doon saam ni ki démb ca Abuja Ismaïla Madior Fall ministre de affaires étrangères di ko weddi ne mësta am monseigneur Benjamin Ndiaye ci libération yéene kaay ne ñun Sénégal dañu mel ni ñun teg rek ñuy tëntëñi xamuñu fu nu jublu xamuñu suñu ëllëg ay calcul politique nag nar ñoo faagaagal monseigneur ne nañ ci wax lu ko mooy réew mi daal di xuusandi libération ne waxtu woowu réew maa ngi ami tojaange kenn munu ci dara waa jii dafa dem ba ci buntu polisu Thiès daal di rendi boppam daal di faatu waa jii jël doomam bu jigéen bu am fukket ak juróom bokk koog beneen